يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر نمشي مقدمة كوكيت باب التعجب بنتي جانغري أك يمو أه، أرابنك بوبو جيوانا نرفي يمو كي وحجامنا تجن بري waaye ñaari tëggin daal lañ ci defal buntu kayfa takfuruna billahi kawteef naf ngeen weddee yàlla subhanallah loolu dañ koy wax ngir yéemu ak yu mel noonu waaye ñaar lañ ci wutal buntu ñaari tëggin mooy ma afalahu ak afil afalahu afil bihi ñaar yooyu ñooy tëggini هيمو بوبجي موتشي دارانو نجرف ما أفعلون مثال ما أحسن زيدا لوجنا رفت زيد ولما أكرم زيدا لوجنا تد زيد ولا أكرم بزيد ولم يمل ترانجك زيد أحسن بزيد يمل تارب زيد يعني تجنيه موموتي moo ci am loolu lay wax ne axbir na nga xibaar an ma ci ma maanaam am ay an ma bi afala ci afala an naasibi bi aji nasab maa nga xam ne yuraa dañ ko gis baadu gannaaw bi maanaa chi in mu yore maanaa mbir imrin bi aji màgg imrin mooy azim dafa bëgg waxe maagoogu nakiratu mawsuuf la nakiratun mawsuufatun nakira guñ meral maa akrama wala maa axsana zaydan dafa bëgg waxe maagoogu nakiratun mawsuuf la di mubtada afala gi ñëw gannaawam nasab la ñëw gannaaw afala te mooy zaydan jumla boobu moo di xabar ka googu feexlu la moog faayilam ñooy xabaru maa kon maa nakiratun mawsuufatun nakira guñ melal la mubtadawun waaye mubtada la dañ koy binaan sukkoon mu nekkee barabu rafaa di mubtada أحسن فعل معدلة فعل بي دمير مستتر تقديره هو جملة بو مونيك برابو رفعتي خبر ما زيد المفهوم بيرا لون لو احنا أخبرنا خبر عن ما تما بمعنى شيء امر مويرا معنى امبير ممج خبر مويرا موي بأفعال تي أفعال الناس بأجل نسب معنى خم يراد انكو جيس بعدو جناو أفعال لنيو جناو afaala googu nga xam dafa dañ koo tëgg ngir taajub yéemu loolu dañ koy nasab waaye loolu wutee la maa gu nakiratu mawsuuf la wutee nañ moom li wax ni benn anam la am na ñu ne maa gi nakira taamma la nakira la gu kenn meralut loolu mooy wax ji gën a wér maa nakira taamma la gu kenn matarut loolu la si ba wax te mooy di wér jumla bi ñëw gannaaw ga nag moo di xabar ba comme nii ma ko waxee kon ma axsana zaydan nattale bi mooy shay'un ab mbir axsana rafetal na zaydan doo fa nattale di ko melal na shay'un azimun axsana zaydan déedéet shay'un axsana zaydan kon li gën a mooy maa goog nakira la gu mat gu melalul mubtada la لن يوجد موي خبرة شيء أحسن زيدا موي معنا ما أحسن زيدا ما أبير أحسن رفت أن زيدا بوكي فيري موي شيء أبر أحسن زيدا أحسن زيدا نك كو قبر معنا ما أحسن زيدا شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا بالمومدفن زيدا موي رفت loolu la Sibawayhi wax loolu mooy ngir mu gën a wér amma moom li wax nag maa nakiratu mawsuuf la maanaam shay'un azimun ahsanu zaydan su ko defee azimun naatu la ci shay'un googu ahsana googu di xabar ba zaydan maful bi ahsana ak faa'ila mooy xabar faa'ila demir la mustadrak taqdiru huwa moom loolu la wax dégg nga am na ñu ne nakira maa nakira mawsuuf la gaa waaye jumla bi ñëw gannaaw mooy melaw mooy sifa ba xabar gi dañ ko xasaf xam nga moom def ne naa nakiratu mawsuuf la jumla bi ñëw gannaaw mooy xabar ga mooy shay'un azimun axsana zaydan axsana zaydan mooy xabar ga azimun mooy nakira ci shay'un ماك لي في ماك ماشي ونادم فهمني لف ما نكرة الموصوف نك ويا جملة بيني وجناه وموي صفة خبر كني حسب ما أحسن زيدا لم في اليوم الدنيا وحنا شيء أمبر أحسن رفة زيدا أحسن جوجو جملة بو مونيك بربو رفعتي خبر دي دي مرتي شيء شيء أحسن زيدا عظيم عظيم ما خبر بفوف kon waxal na ñett maa nakira taam la ma axsana zaydan am nañu ko firee shay'un axsana zaydan maa ngi di mubtada axsana zaydan di xabar ko loolu mooy lan si wax looloo gën a wér benn ko am beneen nattale maa axsana zaydan moom nattale ba mu andi mooy shay'un azimun axsana zaydan azimun di melo ci cheyun googu kon nag maa nakira mawsuuf la nakira guñ melal ahsana zaydan di xabar ba amaat beneen nattale mooy cheyun ahsana zaydan azimun mbir mu rafetal zayd lu màgg la kon foofu ma naan maa nakiratu mawsuuf la waaye nag jumla bi ñëw gannaawam du xabaram moom mooy sifaam mooy melo mooy naatu ga azimun mooy xabar ka mu am ñeneen beneen anam نما اسم موصول لا جملة بيني وقنا سيلة رجلة سيلة موصول لا خبر جرينكو حذف لول أخفص وخ لو ما الذي أحسن زيدا شيء عظيم الذي أحسن زيدا شيء عظيم الذي ما أحسن زيدا فوق فيكو تي واخي أخفش جو ما جرينكو يا الذي أحسن زيدا سيلة الذي لا دخل اسم الموصول فمام سلة فمام جملة عايد جيم ضمير با شيء بير لنك عظيم باجي ماك ماي خبر با عظيم آه، لو الخبر لك شيء عظيم خبر لك ون ماك لا ماك معك الذي كن ماك اسم موصول لا أحسن زيدا سلة عملة خبر بلنكو حصف مو شيء عظيم كن ما أحسن زيدا قمنا شيوخ أخفش بوغ الذي أحسن زيدا شيء عظيم مخينة تين أمني نيني ماغي ماغ استفهامية لا ماغ لاتش جملة بيني وغنى أمنك موي خبر با مترالكم أي أي شيء أحسن زيدا لولا يوحش أي شيء بنبر أحسن معرفة زيدا ma ahsana zaydan am na ñu ko firi noonu day laaj ay shay lan moo tax zaydu rafet nii loolu lu tax lii mel nangam léeg-léeg olof wax ko pour yéemu noonu la ay shay ahsana zaydan shay googu mu daa firi waa ayu istifham la pour laajte fa nekk moom tara ba zaydan fi'lu ak faa'il ak maf'ul bi waaye mooy xabaru ayu kon wax yi moom moo ci am ci maagoogu moom nag benn bu la ci tànn axbir na nga xabaar am maa maa kon maa mubtala la bi maana cheyin imrin mooy ren mbir mu màgg imrin mooy lu màgg xabar bu mooy ren bi afala ci fenlu afala gi ñëw gannaaw maaga an naasib bi aji nasab maa da nga xam ne yuraa dañ ko gis baadu mu ñëw gannaawam ni ki maa axsana zaydan lam nasab gannaaw ga mooy zayd axsana googu wax ne mooy xabaru maag maag yu nekk na kërtu mawsuuf ne yore shay'un azim moom noonu la wax wajrur na nga jar min baadi afil gannaaw afil faailuhu faailam bi baa ci baa wala boog fasha siw na mu diyuhu wayeg loolu bi baa in ci baa naafila boo xam ni dañ ko dañ ko dolli maanaam dañuy tëgg fi'lu bi yox jox ko tëgginu fi'lu amr nammuñ ci digle nag waaye yéemu lañ ci namm ni ki ahsin bi zeydin xasuna zeydun rek la xoon xasuna rafet na zeydun ñu tëgg ko tëgginu fi'lu amr ahsin bu ko defee la nga xam ne moo doon faayil bi ci ci cosaan ñu jar ko loolu lay wax ne wajur na nga jar min baadi afil gannaaw afil faayil wala faayil bi ci cosaan afil bi zaydin ahsin bi zaydin ay ahsunu zaydun rek loolu ahsuna rafet na zaydun ñu jox ko tegginu feel amru waaye namuñ ci maanaa feel amru maanaa bi yéemu la nekk ahsin bi zaydin yéemal taarab zayd walla wana fasha siiw na muddi yu foo wëyëg jar googu bi ba in ci ba naa fila koo xam ne ndollal la baag ndollal lañ ko jare su ko defee kon ñaari tëggin yooyu la euh, siratu taajub ame afala ma afala af'il bihi maa ahsana zaydan ak ahsin bi zayd yooyu leen jàngale pour wàllu yéemu mu ne waqat ajaazu daganal nañ xasfa ma xasaf li nga xam ne ujiba yéemu nañ minu ci moom waaye in zaxara nem feeñ na al maana maana ba kama kutib comme niñ ko bindee nazman ci way wa la nga yéemu su fekkee leer na mën nga ko xasaf bañ koo tudd la nga xam ne ni moom nga yéemu maanaam lañ nasab maa axsana lu gën a rafet zaydan zayda nga yéem loolu nag nga yéem nga xam ni moom la ñuy nasab gannaaw afala wala moom la ñuy jar gannaaw afil su leeree mën nga ko bañ a tudd comme nu ñëwee ci way ba mu ne fa yaa ما أبقى ويا أمن ما أنوى ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى ويا شوق ويا جفل ما أبقاك ما لمج ما أبقاك دي سندر كاف قوم موم قيم موم لن نصب جناو أبقاك أذنك ويا وخيت بيت بن أرى أم عمرو دمها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا araa gis naa yaay amru ronqañ yaa ngi bàttar ndiku ngir jooy amru amru wa ma kaana asbara lu ko lu ay ma asbaraha ma kaana asbaraha haa googu mooy ma fonum asbara moom la ñuy yéemu dafay dellu ci yaay amru bu ko la nga njëkk a tudd araa umma amrin wax jooju wane na kan mooy ki ki mën a muñ mooy kan asbara ak lu ko dàq lu ko lu ko lu ko dàq muñ loolu xam nañ kan la direct doo xaagoo alquran wax na ko asmi bihim wa absir ay wa absir bihim asmi bihim wa absir wa absir bihim dafay bihim googu ñu daal di ko moom la ñu kon li nga xam ne ni moom nga yéemu mooy lay ñëw gannaaw fexlu ba mu di ko nasab gannaaw afaala ga wala la baaga dugg bu neexee nga xasab ko mbir ma leer na nañ man boobu xasab su ko defee nag balaa loolu balaa ñuy jàll ci beneen béyt bi stop ñu leeral fexlu taajub ci lan lañ koy tëgg jàppal ne moom na ko gisee rek noonu du soppeeku ma afalu ma afalu maa di boobu rek afil bii afil bii fi'l amru boobu rek du soppeeku waaye pour fi'lu bi ñu def ko afala wala afil juróom-ñaari sart yi foo mu dajee pour ñu tëgg fi'lu bi afala wala afil juróom sart yi foo ñu dajee benn dafay nekk sulaasi kon lu ëpp sulaasi kenn du ko tëgg fi'lu taajub comme daxraja istaxraja kenn du ko tëgg fi'lu taajub kon sulaasi lay ñaareel ba foofu fi'lu bi nekk fi'lu dafay soppeeku fi'lu boo xam ne nangu soppeeku ni ki afaalul jaamil yee fi'lu yu way comme biisa ak laysa ak ni'ama yooyu kenn du ko tëgg fi'lu taajub ñetteel bi fi'lu bi mën a gënante fan yoo xam ne ñëpp ci yem comme maata dee na ku gën a dee amut fan ya jeex na ku gën a jeex amut kooku kenn du ko tëgg afaala wala afel ñeenteel bi foofu fenlu bi nekk fenlu taam bu mën a am faayil ak mafhum bi amma afaalu naaqisa yi comme kenn du ko tëgg fenlu taajub nii daganal nañ ko juróomeelu sart mooy fenlu bi bu nekk fenlu boo xam ni dafay dàq mukk di la dàq gi sax laazim la ni ki ma aaja fulaanun bi dawaa mooy man tafan bii jëriñu ci fi'lu buy dàq daal kenn du ko tëgg fi'lu afalu taajub maanaam kenn du ko def fi'lu taajub juróom-benneelu sart bi mooy bu mu nekk fi'lu boo xam ni melaw afal lañ koy tëgg maanaam bu mu nekk fi'lu boo xam ne dafay tekki ab couleur maanaa couleur la yore comme aswad ahmar xam nga kooku afaan lañ ko tëgg boo defee ahmara gën a xonq su boo dafay lënt duñ xàmme melowa ak siratu taajub ba ko defee ahmar namu ci yéemu ma ahmarahu daal duñ ko ko tëgg daal yi nga xam ni dafa eh, ay ay ay ayib lañ ci nit ki kooku melowa afaan ah, lañ koy tëgg kon duñ ko mën a def fi'lu taajub comme xawila foofu axwal ku jël awira anwar ku pat kenn doo ma anwarahu wala awir bihi ma axwalahu axwil bihi ma aswadahu aswid bihi loolu kenn du ko wax juróom-ñaari sart bi mooy fi'lu bi bu nekk fi'lu boo xam ne mabni lil maf'ul dégg nga maanaam xamuñ faa'il ba loolu kenn du ko tëgg fi'lu taajub duriba zaydun kenn du wax maa daraba zaydan suubaa duñ xam ne fi'lu mabni li majruur bi ak bi nga xam ne xam nañ ko ko def su fekkee ne dangaa jël danga am baat boo xam ne bëgg nga ko tëgg fi'lu taajub te sart yi dajewuñ ci danga indi fi'lu boo xam ne sart yi mën na ci daje baat boobu nga def ko masdar masdar moom nekk ma mafhum bi dégg nga si misaal daxraja birin na xam nga daxraja tan mooy masdar ma mais daxraja ëpp na sulaasi ëpp na ñetti xaraf kon kenn mënu koo tëgg fexlu boo xam dañ ci yéemu andi fexlu boo xam ne saati dajale ma ashadda lu gën a tat قجل دحرج جوجو دفكو ما فولبا ما أشد دحرجته لوجنا تب برنم آ آ وار كوبات كنونو فعل تعجب ويبوش بقي يوم لأن ما أقبح عوره بسنا عور لأن يعني مصدر ما والأقبح بعوره أشدد بدحرجته ما أشد حمرته ashdid bi xumratihi parce que ahmara kenn du ko tëgg fi'lu taajub kon boo bëggee tëgg baat bi fi'lu taajub mënu nekk indil fi'lu boo xam ne ni sart yi daje nañ ci nga jël baat boobu nga xam ni bëgg nga war a fi'lu jub te sart yi dajewuñ ci nga def ko master samp ko mu nekk ma foolam fi'lu bi nga xam ni sart yi daje nañ ci bu defee sart yooyu mooy tax ñu mën koo tëgg afala wala wala afel boo ci gis nag ñu tëgg ko loolu te sart yi dajewuñ ci rek dafa jàdd xiyaas nekk li ñu ma axsarahu ñu ngi ko jëlee si oxtu sira oxtu sira xam nga dañ koo tëgg ci mm, loo xam ne dañ ko def moom ni ma majhul ba pare ëpp na ñetti xaraf kon ñaari sart xët na ci te teewu tëgg nañ ci ak fin de temps jub ma axsarahu di ci yéemu dafa jadd qiyaas ma axmaquhu axmaq xam nga mooy loolu wasfu la wasfu la goo xam ne afaan lañ koy tëgg parce que xamiqa dof na lay firi foofu axmaq kooku ayib la su ko defee wasfu bi afaan lañ koy tëgg ñu def ko ma axmaquhu loolu dafa jadd qiyaas da nga gis ma ansaahu jëlee ko si ansa te ansa lu soppeeku yooyu dafa jàdd xiyaas yu mel noonu boo gisee xamal na dafa jàdd dafa jàdd xiyaas dégg su ko defee fi'lu yi it <clears throat> afala taajub xamal ne maf'ul bam nasab mënu koo jiitu maa axsana zaydan mënoo wax zaydan maa axsana mënoo waxit maa zaydan axsana moo xam mafoon bi dafa jiitu maa gi axsana gi yëpp wala axsana gi rek la jiitu jiituwul maa gi dara mënu ci nekk mënoo wax zaydan maa axsana mënoo wax maa maa zaydan axsana loolu mun nekk maa axsana zaydan rek mënoo waxit bi zaydin axsin déedéet axsin bi zaydin rek kon faayilam googu ñu jar wala mafoonam bi googu mën a sab mënul jiitu bu mukk su ko defee nag ndax man nga ko ka amilam ba lam jëf loolu lay wax ne wa baynahu digganteem wa bayna amil ak diggante lam jëf fu si la teqal nañ ko bi zarfin ci zarfu dégg nga waaye zarfu ga dafay fekk mu nekk am am relation ak fi'lu taajub gi aw bi masdarin wala ci masdar وقد نقلت وخلاف من فصل تقل بمجور تلنجر ولولا لولا حال أجحال كمثل ما أحسن لغنا رفت أمس دم حالي سمبر ما أحسن لغنا رفت أمس دم حالي سمبر أنا ما أحسن حالي لول ما حالي هم مفرقي mu dugal ci am ci am ci zarfu la dégg moom la waxaat wa axri iza xaalat bi an ataxawala wa axri yellool iza xaalat bu soppeeku bi an ataxawala mu soppeeku maanaam bu moom bu changé man maa gën a yellu changé waaw maanaam da doon wax ne uqimu bi daaril xazmi ma daama xazmuha maanaam fekk mu ngi dogu rek maa ngi sax ci kër ak xasmu googu waaye nag bu soppeekoo man maa gën a yelloo soppeeku su ko defee boobu it boo xoolee ana taxawalaa googu mu nasab isa googu isa xaafidun li sharti mansuubun bi jawaabihi isa xaalat axri bi an ataxawala kon boo xoolee am na relation ak ak ak fi'lu biñ tëgg afil dégg nga waa nag su fekkee eh, naka noonu ma axsana am si xaali relation waaye bu fekkee jote wuñ dara ma axsana indaka jaalisan sarfu gi ajuwul ci axsana ga loolu kenn du ko wax ma axsana indaka jaalisan ay ma axsana jaalisan indaka xoole amut ak rapport ak benn yoon axsana ak loolu mënu nekk waaye bu ajoo ci afala gi mën naa nekk bu ajoo ci fin lu taajub zarf bi ak mën naa dox digganteem ak mafoolum bam nasab ma axsana am si xaali ak wa axri ida xaalat bi an ataxawala ay ida xaalat axri bi an ataxawala jawaab googu mooy nasab ida te mooy fin lu taajub googu تقول أو بمصدر ولا مصدر ما أحسن دينجا حسنا زيدا إيه ما أحسن أجرفت حسنا أجرفت زيدا كوكو مصدر لا دخنا شي ديك انتبه حرف جارد من نادوختي ديك انتبه خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر xalila ye ma axra lu gën a yelloo bisi lubbi ñeel borom ak xel waaye foofu it la mu waxoon ci sarf rek dafay fekk jaar majur aju axra googu maanaam nekk mahmuram mahmuram afan la ka majur na axra bisi lubbi nag mooy mafulum ahra ma ahra an yura loo gën a yàlla ci borom xel ñu gis ko muy muñ waaye man dama mënul muñ walakin la sabila ila sabri kon zarf ak yaara majur moom bu fekkee aju nañ ci fin lu taajub bi mën na mën naa dox seen diggante mais bu ci amul benn rapport du mën a nekk mën a wax ma ahsana bi zeydin maaran xam nga bi zeydin aju ci ahsana maar ci maaru la aju nga namu si ma ahsana maaran bi zeydin loolu moo nekk ma axsana maaran bi zeydin mën naa nekk waaye ma axsana bi zeydin maaran bu dafa jaar ak dox diggante axsana ga ak lam nasab loolu moom nekk parce que jaar ak majur amut ak benn amut ak rapport fin kon jaar ak majur ak zarfu buñ ajuwu ci fin lu taajub bi nekkut nekkuñ maamuuru fin lu taajub doo leen mën a du mën a séparer fin lu taajub ak moo fooram waaye bu dee maamuuram la dana leen mën a séparer dégg ولولا لولا من أن ما أحسن لولا أن يكون بخيلا زيدا ما أحسن زيدا لولا أن يكون بخيلا لون مورن جسالي لقنا رفض زيد بنايته أن ما أحسن لولا أن يكون بخيلا زيدا كوكبتين من أنك لولا من أدوخ سيدي غنتبه أك حال من أدوخ سيدي ما أحسن راكبا زيدا أي ما أحسن زيدا راكبا ويا حال بمن أدوخ سيدي غنتبه أحسن أك مفهوم بيه su ko defee loolu la jàngale ci bunt bi di fi'lu taajub in uridu lislam astaatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh